asalaamaaleykum dalee nag jàmm ci xarala académie mbokk yi si daan xarala académie dañuy topp si suñu formation HTML CSS en wolof tey nag dañoo ñëw si partie bu am solo comme que jàng nañ partie ni ñu structurer suñu document HTML léegi dañoo bëgg ñëw ci nan lañ koy miser en forme maanaam styliser ko def si couleur yi ñu bëgg ak tamit euh, image yi naka lañ si mën a liggéeyee léegi loolu li ñu koy may mooy euh, CSS. defoon nañ CSS wax leen mooy lan mooy feuille de style en cascade léegi ñu ñëw si projet bi balaa ñoo commencé wan la tamit naka ngay structurer sa projet maanaam naka ngay taxawale bu baax a baax léegi maa ngi si bureau bi léegi damay ñëw si benn dossier fii comme fii nii léegi mën nañ ñu ñu créer fi benn euh, dossier tuddee ko projet 1 ok léegi li mooy noowu projet bi boo duggee projet ni ñu koy structurer premièrement di nga soxla ay feuille de loolu moom la ñu tuddee CSS ñu ngi siy waaj ñëw léegi di nga soxla tamit foo xamante ni fi ngay def say image mooy dossier image bi di nga soxla tamit beneen dossier mën nañ ko tuddee include mooy yeneen page yi nga xamante ni da nga koy soxla léegi li mooy dossier yi ngay soxla bu nekkee tamit da nga am ay bibliothèque wala librairie wala framework mën nga tuddee bib léegi ñu ñëw si li ñu yitteel tey mooy euh, CSS bi léegi da ngay ñëw nga def index point html mooy suñu page d'accueil wii léegi dañoo bëgg dossier bi ubbi ko ak suñu éditeur texte mooy notepad plus plus ñu def notepad plus plus léegi notepad plus plus nga ñëw fii fichier euh, ouvrir le dossier en tant qu'espace de travail nga ñëw léegi ñun ñu ngi def suñ dossier bi liggéeye si disque local je pense D1 disque local D1 projet projet 1 ok voilà léegi suñu projet moo nekk nii léegi index.html la moo fi nekk comme ni ngeen ko defee woon rek si commencement bi doc type html dañuy déclarer type document document wu lan la léegi boo paree html nga tijji daat koy tëjaat muy html léegi bu ñu wàccee suuf non pas new soxlaa ma new dossier kii bi lañ soxla voilà index.html moo nekk nii léegi la moo stoppaat head mooy mooy en tête bi ñu tëj buñ paree foofu ñu ñëw euh, body body ok body moo nekk nii head moo nekk nii léegi ci xeet bi am na lu ñu soxla bu njëkk bi mooy damay defay commentaire mais HTML nanguwul benn ligne commentaire loolu xamal tax mooy titre ñu wan bonne pratique yi li nga après nga mën ko utiliser title euh, mon projet title léegi bu la neexee tamit nga def euh, encodage bi comme mën nañ ñëw ñu def encodage boobu mooy ban ñu def euh, meta that's crazy ok meta car set car utf 8 mooy encodage bi léegi bu ñu defee encodage bi def titre euh, line list topp moom mooy euh, stil bi léegi lien CSS léegi ñu ñëw fii ci page bi def benn H1 pare H1 comme naka lañ koy tuddee ok mon projet baax na def benn paragraphe puis bienvenue chez chez <laughs> Xarala ok c'est cool ok léegi yëpp jàngoon nañ ko léegi ñu ñu ñu ñu ubbi ko ci suñu navigateur préféré mu ne Google Chrome Google Chrome ok Google Chrome ok Google Chrome mi ngi nii lii lañu bindagum mon projet boo defee nii afficher le le code source gis nga da indi indil mu wan leen yow respecté nga norme yëpp ok léegi liñ bëgg dañuy def lien bi léegi nag bu dee CSS am na lu ñu naan internal ak tamit external léegi ñun lien interne. boobu defoon nañ ko suñ tutoriel bi passé mais dañoo bëgg a def beneen feuille de style externe comme si CSS fii lañ bëgg créer suñu feuille de style léegi ñu créer ko fii def euh, fii nouveau fan nekk fii ah ñu def nouveau euh, daal koy enregistré enregistré ko fii lañ ko bëgg a enregistré CSS bi def ko comme style point CSS léegi bu dee fichier CSS fii lay li lay jeexee point CSS bu dee fichier HTML day jeexe point HTML bu nekkee sa navigateur bi moom souvent dana ko indi euh, éditeur texte bi autant pour moi moom dina ko indi souvent indil euh, ñoom HTML CSS yaakaar naa boo xoolee fii di ko gis te mu xool voilà même boo ko indiwul boo ko bindee rek moom après dina ñëw mooy style point CSS mu ngi nii voilà léegi CSS moo nekk fii nii léegi euh, xaaram wala benn image CSS ni muy fonctionner ba pare après ñu continuer. waaw euh, léegi jël naa image bi image moo nekk nii CSS nu muy fonctionner euh, premièrement mu ngi nii moom lañ naan selector selector moo nekk fii nii léegi selector boo ñëwee mi ngi nii mooy H1 comme tey euh, selector bi ñu am fii nii mu ngi nii mooy H1 léegi beneen bi stop moom mooy property property mooy. propriété après value value mooy valeur bi valeur moo nekk nii léegi ñun lii lañ bëgg a def dañoo bëgg a jël H1 bi daal def couleur bleu voilà léegi ñu ñëw ci feuille CSS bi première lan la wax ñu ni selector ñu def nañ selector ubbi daal tëj voilà léegi lan lañ bëgg changer couleur bi ñu def color euh, blue léegi ñu xool ndax dina changer wala du changer voilà gis nga changé wul parce que dañoo deful lien bi dañ ko lien ak fii voilà léegi ñu ñëw fii def ni link léegi da ngay ñëw nga def relation bi moom ak page bi nga def style euh, sheet fii nag si ngay joxe fi mu nekk comme href fan la nekk css css style point CSS léegi ñu xool ba xam voilà ñëw na couleur bleu mu ngi nii gis ngeen léegi bu ñu neexee tam mën nañ changer couleur de fond bi maanaam background bi léegi ñëw jël euh, baat yi boo tijjee tamit da ngay tëj attends ah. pour bañ def erreur léegi ñu def background kaalax ban couleur lañ ko mën a jox fii gris baax na gris gris gris ok gris voilà mi ngi nii bu ñu neexee tamit mën nañ ñëw fii inspecter ñu daal di changer couleur bi comme badi lañ nekk couleur mi ngi nii mën nañ ñëw fii xool benn couleur boo xamante ni kii na fii ay code lay jox code couleur bi cool cool cool oh, that's crazy ok da nga code bi ex léegi dinañ ñëw si code yi tamit naka nga si liggéey daal koy collé fii nii daal di ñëwaat ok ñëw na voilà tey jàng nañu tutoriel bi lan mooy feuille de style ak naka ngay eh, linké sa feuille ak sa page HTML jàng nañ tamit eh, CSS lan mooy njariñam si tutoriel bii ñëw incha allah danañ commencé dem dem ci yeneen tutoriel yi. maanaam naka nga koy utiliser background naka ngay travailler ci image yi naka ngay liggéeyee ak lien yi balaa boobu ngeen exercer wu ci liñ jot a jàng ba beneen yoon ci beneen tutoriel merci